mbokk yi internet yi Dakar People ñu ngi leen di bu baax a baax di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal di nuyu suñu mbokk internet yi ñu bàyyi xel di ñu saa su nekk comme ni ñu koy waxee rek euh, mbégte la am suñu war jàkkaarloo gi seen leader bi ngeen seen boobu muy Dakar People mais ku ne xam ne ñu ngi fi nga xamante ne mooy ASECNA te am fi benn dese di wax inna lillahi wa inna ndax ku ne xam na presse bi nga xamante ni mooy wàllum TikTok bi doon fa liggéey bu am solo macha allah tey nag ci décembre koo xam ne mën naa wax sax nag yor ci lépp dama koy jox mu nuyoo après ñu continuer waxtaan wax ay témoignages yoo xam ne xam na ko ci presse ñu yaatal ko ay jël lay siyaar. bisimilah waa koñ bi yëpp di leen ñaanal gudd fan wér gu yaram jaamu yàlla buñ nangu ñi toog fii ñëpp ay góor pii la fi toog. ñoo xamante ni bi ñuy ne bi ñuy ñëw ci koñ bi ñun ñëwuñu fi parce que dañoo dabee bu ñu joxee ci bàyyi ñu ñuy wax xëy na ñun li ñuy wax ci ñoom lañ koy jëlee am nañu ko mën am nañu ko waxul waaw yaa war a wax yaa nu doy nag bu na tax wax mukk loo xamul ci àdduna mais ñun soobee yàlla ñu ngi sàkku lu ñu fiy wax ñun doon lu ñuy xam lu ñuy maîtriser incha allah mhm. soobee yàlla. tey ñu ñëw fii ci dëju ki nga xamante ni mooy presse euh, ndax presse ku ko xam yàgg koo xam ci li nga xamante ne mooy wàllum réseaux sociaux yi tey jaale ñu wax ne moom moo génn àdduna di jaalewaat ay mbokkam ay famille di jaalewaat ay way juram tey boo ñu doon wax sa diggante presse tey waaw ñun ñu ngi ko xamee petit macha allah star la ko ñun ñëpp bégal nañu ñun ñëpp ñun moom petit lañ ko xamee mais presse bi tamit siiw na parce que ci saayir booy yi ku ci am tey anniversaire boo ko woowee day ñëw ci yow wayal la bégal léegi léegi rek ñu ngi doon seetaan ay vidéo am benn booy ba amoon anniversaire mu ñëw woyal ko lu neex kon dèjà ñun xam nañ ko man nag li tax li tax ma ñemee wax mooy sama sama rak ma bokkal ndey ak baay di xaritu booy yi toog fii yaayu presse da koo bëgg muy maire bi korité tabaski lu jot day jël bool indi ko kër ga boole ko dix mille jox ko booy bi te kooku mooy sama caatu yaay te presse mi dem mooy caatu maire bi encore kon dèjà te kër googu am nañ fa baat parce que ñoom bu ñu fi toxusee yàggul mais defuñu fi lu leen di xeebe waaw fii ñu toog di wax fii nii presse toog na fi bégal ñu def nañ fi pëjam mu yéeg yëngal fi ñëpp a kontaan fu mu ñu romb def ñuy mbalak waxtaan kaf ree man tontoo la may wax mais amul amul ku koy seedeel reewande te tamit benn affaire am na ci génération ci booy moom 2004 la judd moom kese moo ci yeewu 5 heures du matin dem jàkka ji di julli kon kooku mën nañ koo seedeel ne jullit piir la loolu daal xam nañ ko ci moom ba leneen ñëw ñu wax leneen. dañuy eh, wax lan lan moo ko daloon ñu ne dafa feebaroon feebar bu yàgg après dégg nañ ci information ñu ne dara dalu ko est-ce que buñ ko yàlla moo dikk kul nafsin saa xatal mawti bakkan bu ñam dund dana ñam dee yàlla bu la soxlaa sa bis mënoo koo changé. ñett ñuy wër garab nag boo fekkewul commencement bi doo xam ko jiitu mais ñun xam nañ ko jiitu parce que nit ñi ku nekk day ñëw wax sa version waaw biir fa la doomu taal la xal yaa ngi ci biir boo dogaloo sa loxo du la nag ñun li ñu xam lañ ci mën a wax. fubal nañ ba pare toog fii di waxtaan suñu biir dégg seen waa yuuxu ñu ñëw fekk ko melokaanam ñu yenn yóbbu hôpital mën na am tamit ci yoon bi la wàcce waaw. loolu démb la. diggante 7 heures parce que julli na timis ba pare julli na timis diggante 7 heures 8 heures heure yooyu la sànq rek nga jékki-jékki dégg seen waa kër di jox bi mu bett na ma bett na ma trop parce que cinq heures romb na ma ñuy fubal ma ne ko kenn du la tiiral danger parce que xale nga loolu ay 5 heures la kon léegi cinq heures 6 heures 7 heures bu loolu amee daf may bett. parce que ñun bi ñu dem sax yaakaaroon nañ ne day ñëwaat. waaw mais après lañ xam ne yàlla def na li gën ci moom. noonu la demee tey feebar ci feebarul. bu dee wàllu feebar moom feebarul. yàlla nag moom mën na la jëlee ci anam bu ne. mais bu dee feebar. dara jot ko. yàllaa ko soxla jël ko yóbbu. mais bu dee feebar mu feebarul. waaw. Pérès booy bu baax. booy bu yaru. waaw ku am lislaam am diine. jox ñëpp cër xale mag. te li ñuy wax nii dëggantaan la du lu ñu sos wallahi azim ku baax la am na yar am na teggin fu mu la romb dana la jox cër parce que par exemple nit di nga joxe cër ban yaakaar ne sax da ngaa ñàkk fayda wala da ngaa dooj man su ma nee su ma nee tonton Baye Fall dama naan ko tonton Petit noonu lañ naan wootantee maak moom waaw loolu daal xam naa ko ci moom nit ku baax la en tout góor pire la parce que fii amul kenn koo xam ne ni xam na lu ko neex ak lu ko naqari loolu moom xam naa ko ci yéen ngeen ñàkk ay famem ñàkk tey ba nga gisee tey yaayam ak état bi mu toll. non yaayam moom affaire bi day doy ci moom parce que mooy caatam parce que ñoom seen kër yaayam maa liggéey néegam mais jamono bi ma fay liggéey su ma nee petit jox ma soo biis sax daan bàyyi faal bàyyi sama caat bi liggéey loo ma ko mënee bar jamono yooyu mi ngi ci soo bi di répété di woy di bind ci yooyu la nekkoon bëggul woon sax taq yaay ji bëgg ko ba gëmewu ko loolu moom leer na ma nañ mu doon caatam xam nga caat moom moom la ñuy gën a bëgg ci waaw loolu daal xam naa ko ci moom. ban non man moom dégg naa ko muy way toog naa seetaan ko ci pëjam mu yéeg way fekk naa tamit suñu kër benn booy amee benn anniversaire mu ñëw ci kër ga toog di ko wayal suñu biir kër. Mhm. loolu tamit fekkee naa ko. ndax ñu si bëri bu ko ràññee grâce à benn page bu mu dugaloon ci TikTok bi ne comme day takk soxna yu ci bëri sax ci loolu lañ ko ràññee. waaw loolu bës la parce que ku juddu 2004 jamono yooyu mu koy wax 13 ans la am nga dégg ñu ne ko am 13 ans takk jabar loolu bës la woon waroon na àdduna ba ñëpp xam ko ñu bari ci loolu lañ ko xamee xale bu ndaw am 13 ans takk jabar mais loolu mënoon na koo yokk moo yokk ko tam ba tey ñëpp xam ko. noonu la demee xale bu ndaw am coow bu toll noonu. waaw waaw loolu demee nag làmmiñ nag. jugul bant sax saakamtumaa nit. àdduna moo doxee noonu. te booy xool cat da lay topp biir bàmmeel. cat bu rayul rek seemel mais man man sama gis-gis. cat la waaw. noonu la demee te tamit sunu koñ bii nii mm-hmm. loolu dafay bari ci jamono yii ñu nekk mm-hmm. te ñu baax ñoo fi jógee ajjuma mm-hmm. bi mujj ci koor gi la suñu imaam jóge koo xamante ni moo doon taxawu koñ bi lii ngeen gis ci koñ bi yëpp li mu fi jógee moo waral koñ bi xaw a désordre ni mais ku daan liggéey ci koñ bi la yàggul am na benn sapeur bi fi nekkoon suñu moroom la nii lañ daan toogee mu génn àdduna kër gi mu jàkkaar lool moroom booy yi la yaakaar na Omar Omar li moom it génn àdduna dimanche bi paase matul matul ñaari weer am nañ benn xale bu ndaw boo xamante nii tamit génn fi àdduna muy doomu asugay mais sunu koñ bi chance bi ñu fi am mooy nii nga gisee jeunes yi nii ñu mel noonu lañ mel lépp lu fi am muy bànneex muy naqar ñoo koy bokk koñ bi boo fi duggee te xamuñu la sax doo fi def vingt-quatre heures te ràññeewuñ la sens boobu la ñu am fii ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi mënoo xàmmee ku mag ak ku magul ñun ñëpp ñooy toog jaxasoo di waxtaan bu cinq heures jotee ñu nekk suñu terrain football après football bi jeexee ku ci am bànneex ñu bokkoo ku ci am naxar ñu bokkoo ñun noonu la ñuy dundee ci koñ bi loo ñaanal aji dem bi nga xam ne tey moo fi bàyyi ah aji dem bi kay yàlla xam allah wax lam am na côté boo xam ne moom yàlla xam parce que sànq rek ñu ngi koy waxtaane alxuraan amul xel mu neex li yàlla wax rek li yàlla wax waaw mais sama xalaat ma koy ñaanal ci nafsul mu ma inda irji ila rabbika radiyatan mardiya faddu xulli fii ibaadi waa du xulli jannati waaw na yàlla na ko yàlla yërëm dugal ko àjjana moom yàlla na ci bokk waaw man laa loolu laa xalaat quoi déedéet ko suba lañ ciy jot incha allah rabbi instant bii nii après kii kii deux heures waaw incha allah jërëjëf yéen tamit ñu ngi leen di gërëm di leen siyaar waaw yaa war a yaa fi yaa fi yaa ñu doy daal bu tax a wax loo xamul fii te ku fi dem bay wax na wax loo xam ba bu ëllëgee doo ci am benn yaraange loolu daal laa xalaat di gërëmaat booy yëpp nag di leen jox seen waacuwaay waaw di leen wax nag ñu jàllale suñu koñ bii pour nit ñi xam ñu defaral ñu suñu koñ loolu moom foo ko mu jàll comme li Baye Fall boobu doon wax sànq fii moom toog non waaw. léegi nag ci loolu nag laa lay wax. parce que tey moo tamay la boo fi duggoon tey. boo doo fi defee vingt quatre heures. ñu xam ne am na ku dugg suñu biir. ku fi ku fi bokkul. mais loolu ci ñun la ko quoi duñ duñ wax suñu secret ci côté boobu. waaw mais ku dem ba foog na nii fii wóorul ba nga dugg fi def fi naka su noonu. bu la jàppee nga doyal sa waaw jërëjëf. waaw jërëjëf. merci beaucoup Aïssa jërëjëf ñu ngi koy kontaane bu baax a baax suñu frère bi di ko jaalawaat ki nga xamante ne moom lañ bokk muy suñu rakk di suñu frère muy presse di wax yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko àjjana ndax kullu nafsin zaaxatul mawti bakkan bu ñam dund rek di nga ñam dee tey nag wax dëgg yàlla ñuy faral di wax rek buntu kër bu ne lay fëgg tey nag fii la fëgg mais ñu ngi koy jaalawaat ay famille di ko jaale yaayam ak papaam ay mbokkam ay xaritam ay frèram képp koo xam ne rek jege war nga ki nga xamante ne mooy aji dem gi muy presse ñu ngi la koy jaale bu baax a baax a baax a baax di jaajëfal ñëpp di bëggee ñëpp di kontaan ci ñëpp tey nag lu ñëwoon fi nga xamante ne mooy si desee presse bi ñu ngi ñaanal ñëpp jaamal ziar ñëpp jaajëfal ñëpp di wax ba beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf